بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu boroom mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu boroom mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala saxaabati ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw boo xam ni bind bi taxaw na ab diir ci weeru koor wii ñu génn muy shahru ramadan al mubarak nuy ñaan borom bi subhanahu wa taala li ni ci jot a fàggu ci yiw borom bi subhanahu wa taala fay ñu ko te ful ko li nu ci jot am ci ay rëcc-rëcc borom bi baal nu ko te jéggal nu ko te it boole ñu min suada ci ñi nga xamante ni daf leen di gërëm moom sunu borom bind bi di xayaatu saxaaba xam ngeen ni dafa am solo lool ci dunduk aji gëm yàlla rawatina ci jamono yi nga xam ni ay gidd dañoo néew ñu ñor ci topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo bareetut mbir yi jaxasoo lool biddaa am doole lool la ibni mas'ud doon wax muy képp kuy roy kuy topp na topp gaaye faatu muy saxaaba ya ndax kiy dund moom wóoluwuñ ci moom fitna dab ko gaayooyee ñooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu sell ay xolangoog ñu wér ay paspasangoog ñu dëgër ay ngëmangoog ay nitangoog yoo xam ni la imaamu dahabi waxoon la ñuy wax rahmatullahi alayhi keroog bi mu taalifee téereem bu rëy boobu di siyeeru alaami nubala toog tuuti daal di koy tënk ca téere bu am solo booba tazkiratul xufaad daf ni ay gaaya ngi yoo xam ni ku leen bëgg a gis da ngay dem ubbi fañ bind seen siira mbaa nga dem fan leen suul waaye kaw suuf moom kenn dootul gisati ay nit yu mel ni ñoom loolu nag dafa tax ñu war a xam ni mbokk yi saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu am ay dayo yu kawe lañ ba sunu borom bëggee ñu jaamu ko dafa sàkk ay mbindeef indi leen ci kaw suuf ba mu leen bëggee wat nuñ koy jaamoo dafa tànn nit ñi gën a sell ci kaw suuf muy yonent yi ñu ñëw pour jàngale nuñ koy jaamoo waaye ba mu bëggee njàngale yonent yi des fi dafa tànn ay nit ñu sell dar leen ca yonent yooya alayhimu salaatu wasalaam te wax jooju wax ju mat a bàyyi xel la bi maana bi sunu borom bëggee ku ko jaamu dafa sàkk ay mbindeef yi ñu tuddee nit ak jinne pour ñu jaamu ba mu bëggee ñu jaamu ko ci melokaan wa mu bëggee dafa yabal ay ndaw yu sell muy ay yonent te gën a sell ci kaw suuf ñooña di jàngale nun koy jaamoo waaye ba mu bëggee njàngale mi des fi te wér yonent bu nekk da koo tànnal ñu ko dar Muusa aw nitam ca banu Israil ca sabaina rajulan ca ithnay achara naqiban ak ña ko gënoon a jege Isa ca xawaariyuun ya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ca asxaabu saxaaba yooye nga xam ni lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo wat dañ koo nettali suñu borom baaxee leen ba amut lenn loo xam ne làqu na ci njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom ay wattukat lañ woon te it ñu wóor lañ woon fa kulluhum udul comme ni ko borom xam-xame xadiis yi di waxee tey ñoo ngi kenn ci gaa yooye nga xam ni xam leen dafa war te dafa jaadu bëgg leen dafa war a sax ci xolub képp ku gëm yàlla ndax xam-xam ngeen ni kenn ku nekk ca lam nekk ca lay kontaan ci ñu ko cay waxal kullu xisbin bima ladayhim farixuun ñi gëm yàlla nag buñ leen tuddalee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy xam ne ay góor dëgg ngoog ay góor dëgg ngoog ñoo xam ni dañoo bàyyi seeni alal ak seeni njaboot joxe seeni bakkan ak seeni alal ak seen lépp ibtigaa mardati rabbihim ngir bëgg am gërëmal suñu borom xoolal aw nit woo xam ne dañoo génn seeni kër bàyyi seeni alal bàyyi seeni bien bànni bàyyi seeni bokk ngir lan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruuna allaha wa rasula moo tax yàlla dafa leen shahaada bu rëy ulaika hum saadiqun booy war ku dëggu ba dajeeg gaa yu mel nii saye boo nga dëpp ndax ulaika hum saadiqun walladina tabawau ddaara wal imana min qablihim yuhibuuna man haajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون li moo nekkoon seeni melokaan mbokk yi ñii mbokk yi dañ leen war a xam dañ leen war a bëgg dañ leen war a fonk dañ leen war a défendre dañ leen war a aar dañ leen war a sàmm waaye di waxtaanee seen dund ndax inna fi qasasihim la ibra ak waaru moo nekk ci seen nettali tey ñoo ngi kenn ci ñoom ku ñuy tuddee Abdullahi Ibni Rawaha Abdullahi Ibni Rawaha al amiru shahidu said alladi kalaamuhu ashaddu ala al mushrikina min waqai nabl imaama ngi ju mag généralu guerre ngi bu mag boo xam ne yonent bee ko tabbaloon boppam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nga benn borom xam-xam dafa xool siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn ci ay waqafaat yu am solo bokk na ci waqafaat yooyu dañu gis nga yonent bi ku ko gën a mën a tànn amtu woon parce que daa kaana yaarifu aqdaar rijal kenn ku ci nekk ci ñu ko wër xam na li nga capable ak li nga man ak fan nga gën a manee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon tànn ay nit yoo xam ni poste yam leen di jox wallaay ci ngay xam ni kii xam na li muy def abdullah ibni rawaha ci généralu guerre yi yonent bi tànnaloon boppam sallallahu alayhi wa sallam la assaid di ku tedd ashahid di ku faatu di martir ci yoonu suñu borom abdullah ibni rawaha yonent bee waxoon kalaamuhu ashaddu ala almushrikina min waqai nabl kaddu yi abdullah ibni rawaxa di génne moo gën a diis moo gën a métti ay bali fet ci yéefar yi allahu akbar ndax kaana shaa'iran majida ab waykat la woon boo xam ni làmmiñ wi ni mu boyee mook xasan ibni thabit ak kaab ibni malik ak ñeneen ci ñi nga xam ne dañ doon way ci jamono yonent saa sallam way yooye nga xam ni way yu am solo la tey mën a tasjia nit teyit luy jengaloo amu ca teyit dugg ci wa shuaraau yattabiuhum lgaawun innahu abdullahi ibni rawaha ibni thalabata bni imri alqays ibni thalabata الأمير الشهيد السعيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر الذي شهد بدرا والعقبة wa kaana yukanna aba muhammad wa aba rawaha wa laysa lahu aqib góor a ngi goo xam ni moom lañ doon wooye abdullahi ibni rawaha doomi thalabata doomi mirul qays doomi thalaba di amir bu tedd di amir bu dee ci yoon sunu boroom ñu doon ko wax abu amrin al ansaari al xazraji bokkoon ci waal ansaar bokkoon ci giir gu ñu tuddee xazraj bokkoon ci góor yi demoon badar bokkoon ci juróom fukki nit ak ñaar ya nga xamante dañ leen a tànnoon ca bayatul aqabati thaniya ba ko yonent bi def ci ba muy waaj a gàddaay madina waykat la woon boo xam ni fekkee na badar fekkee na al aqabatu thaniya ñu ko doon wax aba muhammad wala aba rawaha waaye dañuy wax ni moom ci wàllu askanam maanaam desu fi xam nga am na ci ñoo xam ni seeni askan des na ba ñu topp ko ab diir bu yàgg diw doomu diw doomu diw doomi diw doomi diw di lim lu yàgg doog a àgg ci ibni rawaha loola moom amut am na ñoo xam ni seen askan dafa gaaw a ah raaf ci kaw suuf abdullah ibni rawaha ndijaay la woon ci saxaabi bi ñuy wax nu'man ibni bashir abdullah ibni rawaha ci ñi ñu mënoon a bind ci waa Ansaar la bokk xam naa su ma nee ci ñi mënoon a bind la bokk ñenn danañ jaaxle waaw ñi mën a bind moom loolu jër naa tudd honkay jamono jooju mën a bind ci boppam daa jafe woon ndax huwa alladi baatha fi l ummiyina rasulan minhum maanaam diw mën naa bind loola lu rëy la woon ci jamono jooja maanaam nekkul woon comme tey xam nga bu ñu nee ku mënoon a bind la loola nit mën naa jaaxle ah mën a bind loolu daa jar a wax honkay mën a bind lu rëyoon la ci jamono jooja bal sax nag sikse la woon famille boo dem ñu ne diw de ci ñu mën a bind ci famille bi la bokk loola lu rëy la woon ci jamono jooja ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi keroog ba muy dem ca badr athaniya xam ngeen badar ñaari badar moo am badar ju saf sàpp ja tamit nga xam ni ca la yéefar yi duma woo ca la jullit ñi duma woon yéefar yi duma yoo xam ni ila axiri dahri mi ngi leen di naqari mooy badar ju jëkk ja badaru ñaareel ja nag mooy moom la ñuy wax al badru thani wala badrul mawid nga xam ne xeex jotu caa am xam nga keroog bi jullit ñi gañee yéef yéefar yi gañee jullit ñi ca Uhud dañoo kontaan lool Abu Sufyan di gaarawaala jullit ñi naan déwén fan leen fa ngeen ñu dumaa woon nag fa leen leen nar a dumaa mooy badar Abu Sufyan mu ni fa ngeen ñu dumaa woon xam nga tey jullit ñi yéefar ñoo gañee jullit ñi Abu Sufyan di leen yuuxoo naan fa ngeen ñu dumaa woon nag bu yeboo ngeen préparé déwén fa lañ leen di nar a dumaa far yonent bi jiitu ko ca barab ba ëllëg ca déwén sax ndax fekk na booba jekku na lool sallallahu alayhi wa sallam waaye gars yi dañoo mujj daw kon keroog ba yonent bi dem waa jii di abdullahi ibni rawaha moom la jëloon dénk ko madina ni ko yow yaay téye dëkk bi moom la yonent bi yabaloon ci waa ju ñuy wax usayr ibni rizam usayr ibni rizam al yahudi am na benn waayu saay-saay bu mag bu ñuy wax salaam ibni abil xuqayq di juif bu saay-saay bu mag bu nekkoon ci madina waaye xam ngeen yonente bi saa sallam kaana yaarifu aqdaar arrijal kenn ku ci nekk daf doon xam kii mooy kan ak lu man day jékki-jékki moom yàgg mu ne ah am na saxa am na waajoo xam ne mi ngi saaga lislaam di saaga yéen ci barab sàngam lu ngeen ci xam benn saxaaba ni ko yabal ma fa wala mu jékki-jékki ni diw demal waa ji di salaam ibni abil xuqayq ci noonu lañ ko faatee ñi jàng siira xam nañ ci yu mel nii yu bari ay façon yu bare bari yu mel nii yoo xam ne saxaaba yi guddi jul fii la ñuy jullee gee jullee si wat fajar loolu am na ba tàyyi jullee fi gee rëppatal saw fas jullee fi wat fajar léeg-léeg ñu am fay fan waaye bala ñoo am jàmm rek kooko dañ kaa kutt waaye jii nga xam ne moom mooy usayr ibni rizam yahudi bi ñu reyee salaam ibni abil xuqayq usayr mii ko remplacé ndax kilifa woon gu mag moom salaam ibni abil xuqayq bi mu faatoo ñu jël usayr mu remplacé ko ca xaybar moom it nekk waaju saay-saay te bon yonent bi toog ba mu yàgg mu ni kii daal war nañoo jóg ci mbiram abdullah ibni rawaha ni ko yabal ma fa mu ne ko jubal mu jóg yonent bi ni ku mën a ànd ak moom ju fanweeri nit jóg ni ko ñun pare nañ pour ànd ak moom gis nga saxaaba yi ñu bari woon ay technique lañ woon radiallahu anhum xam nga kilifa gu mag gu nekk ci dëkk nga ñëw fekk ko sa mbooloo nax ko ba rey ko ak ñoom kilifa yooyu niñ doon ñoree ka ko defee ñor na xom witt mu tàbbi wittut mu tàbbi bi ab Abdullah ibn Rawaha yegsee daf ko dafa agsi ci moom anamu ku nar jàmm waxtaan ak moom ci waxtaan wu dal yonent bee ma yebal ci yow ndax yow kat kilifa nga te kilifa kat léeg-léeg am na yoo xam ne bu ñu koy lijjanti moo ko war a lijjanti wax ay débat débam dajale dajale dajale ba affaire yi bari nax ko ba convaincre ko ni ko kon dañ dem ci yonent salaam waxal la boppam lim la nar a wax nga dégg ko góor gi moom it dib dof bu yenoy daal la ndax xam ngeen ni ku repp ku repp daanaka mooy jëlig deem ku repp mooy jëlig deem mu daal di jóg sol ay dàllam ànd ak ñoom bi mu génnee ba ca digg yoon wa xel mi yedd ko mu xam ni def na njaaxum parce que lii kenn du ko def kilifa du ko def fanweeri nit nga ànd ak ñoom te kat li gën a yéemane bi muy dem da da doon jéem a jaay muusu muusu lu muusu muusu lu mooy comme ñii fanweer la yéen fanweer kaa leen gunge ba yéen mu ànd ak fanweeri nit waaye xam ngeen ni fanweeri jullit bokkut ak fanweeri yéefar waay bi ñu àndee dem ba ci yoonu mu xam ni def na njaaxum mu xam ni def na njaaxum mu commencé bëgg arrière di di diital ah kenn ci saxaaba yi daal di koy yëg bi mu ko yëgee rek telli loos wi ci yoon wi ñu daal di ñibbisi ni yonent bi sax bi ñu nee tellee loos wi rek commencé nag ñoom it rek di di telli loosi gaa yi ci des gaa yi am ci ñu daw ba kenn moo ci rëcc bi ñu yegg seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla musal nañu ci noonab lislaam booba al amiru said al shahid abdullahi ibni rawaha mbokk yi abdullahi ibni rawaha kenn la woon ci saxaaba yi nga xam ni jàng seen dund dafay dolli imaan wallahi day dolli imaan gis nga saxaaba yi jàng seen dund dafay dolli imaan day dolli dëgëraay day dolli gën a gëm yàlla day tax nga xam ne yow fi ne da ngaa teggee ci yoon wi rek waaye defagoo dara xatta al aan abdullah ibni rawaha mi ngi juddoo ci askan wu am te xam ngeen ni famille bu am juddoo ca bew mbaa fuuy yomb na lool ah yàlla teg teg ci mu nekk def mu mën a bind sunu baram dogal muy waykat boo xam ni laa yusaqu lahu gubaar arab yi buñ amee ku leen jaaxal loolu baat yi la ñuy faral di wax laa yusaqu lahu gubaar wala ñu ni farida asrihi wala ñu ni waxida dahrihi wala ñu ni laysa lahu misaal wala ñu ni lam yura mis maanaam façon baat yooyu nga xam ne da lay wan ni kii moom jommal na aw nitam lammiñ wi dafa boyoon ci mën a way ba nga xam ne da ngay yaakaar ne mbir mi da koo préparé fekk yàlla moo ko mayoon loolu abdullahi ibni rawaha am na benn benn benn xissa borom xam-xam yi nettali bu reelu sax mooy xam ngeen ni dafa amoon benn jaam amaale soxna te kam nga soxna yi dañoo xaw a fiir benn bis mu daal di xam nga jaam sañ nga koo def jabar mu daal di ànd ak soxna si sëyeeg moom far jabar ji yëg ko bi ko jabar ji yëgee rek ñëw daal di koy poñe di commencé di ko takkal ay pot fii nag dina am benn waqfa bu ndaw bu ma fiy def boo xam ne sama bopp laa koy jox ak góor ñi ñun góor ñi dañoo yaakaar ne fi ne kër moom xaabar xaabareeg yooyu moo ko yore affaire yi léeg-léeg da ngay lay ba génn ci de gis nga boo bëggee yore kër mu jag léeg-léeg da ngay lay ba génn ci gis nga xaabar xaabar yi xaatar xaatar yi baax na lool waaye li nga koy soxla ci kër bariwul maa la ko wax gis nga léeg-léeg da ngay lay ba génn ci am na yoo xamante ni booy jéem a jaay maay kilifa geeg maay nangam faju ko de am na yoo xam ne da ngay lay ba génn ci laa wax gis nga koo gis mu gën laa mën a lay ba génn ci rek moo lay dàq yor kër bu soobee yàlla jaam bi dikk daal di koy takkal ay pot ni ko da nga doon sëyeeg moom commencé wax ay wax di dëgëral Abdullah ibn Rawaha ni ko xaar ma jàngal alxuraan nga dégg xam nga jamono jooju kon ñoom jàpp nañ ni ku amee janaba comme da doon sëy ak moom kon daa amee janaba ah werante wi ni kur ndaw si ni ko jàngal alxuraan jàngal jàngal jàngal léegi léegi léegi xam nga bu jàngul rek kon li ndaw si wax dëgg la parce que comme daa amee janaba mu ne ko jàngal alxuraan bi mu ne ko jàngal mu ne ko shahidtu bi anna allaha haqqun wa ah shahidtu bi idnillahi anna muhammada رسول الذي فوق السماوات من عل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما لهم عمل من رب له عمل من ربه متقبل ndaw si moom xamewul buñ bojje buñ boxam moom jàpp na ni kii alxuraan la doon jàng mu ni shahidtu bi bi idnillahi seede naa ci kattanu sunu borom ni anna muhammadan gis ngeen muhammad mi rasululladhi mooy yonent ki nga xam ni fawqa samawaati ma nga ca kaw asamaan min alin kawe lool wa anna aba yaxya giñ naa ñi bàyyi yaxya mooy kan kan mooy bàyyi yaxya zakariya wa anna aba yaxya giñ naa ni bàyyi yaxya wa yaxya ak yaxya tamit ñoom ñaar kilaahuma ñoom ñaar ñëpp laa wax lahu amalun min rabbihi mutaqabbalun kenn ku ci nekk xam nga ne defal nga yàlla lu yàlla kontaan ci yow loolu mooy lan ndaw si moom jàpp ne quran la jàng am na beneen riwaaya imaamu zahabi mi ngi koy nettali ci siyar mooy shahidtu bi anna waada allahi xaqun wa anna annaara mathwa alkafirina wa anna alarsha fawqa alsamawati taafin wa fawqa alarshi rabu alalamina wa taxmiluhu malaikatun kiramun malaikatu lilahi muqrabina mu ni seede naa ni dig bi yàlla dige lépp dëgg la te xam naa ni sawara moom ku dib yéefar boo dee fa ngay tàbbi loolu kay wóor na wax dëgg yàlla giñ naa ne aras yàlla mi ngi ko teg ci kaw ndox te xam naa ne kaw aras moom yàllaa fa nekk loolu leer na ma te xam naa ne aras malaaka yu tedd ñoo ko yenu malaaka yi nga xam ne ñoo gën a jege suñu borom ndaw si ne ko am nga sens am nga sens affaire bi daal di jeex gis nga lay na ba génn ci te moo ne am na nit koo xam ne bu doon mooma day jéem a jàpp ni lii dagan na ci man sañ naa ko xaarama xaabar xaabar yi xaatar xaatar yi li nga koy soxla bariwul da baax na nag léeg-léeg xaabar xaabar yi ah day yore kër léeg-léeg saagar saagar yi day yore kër waaye léeg-léeg lay ba génn caa koy yore de gis nga boo yoree kër bëgg ni bis bu nekk sum waay lépp day leer lu ñu corxor rek nga ni lan la jinax la maa kaña lu laal rek nga ni ko ko laal dara doo ko réglé arab yi dañuy wax ni usru mi'shar al aqli fi taghaful fukkeelu am xel mi ngi nekk ci dof-dof la yëg mbir mi ba pare nga naa man de yëguma ci dara loolu mooy lan maam di sànneeku sànneekulu rek gis nga léeg-léeg da nga yëg di sànneeku sànneekulu léeg-léeg nga yëg mel ni ku yëgut léeg-léeg ñu wax lu bon sax nga dégg koo pare mel ni ku déggut feneti feneti jéggale jëllale tëx tëxlu gumba gumbalu ah yëf yi agsi nga dëgg ci sa tànk noppi gis nga yii boo ko lu def boo yaakaar lu yegg si rek nga yaakaar ni affaire yi moom mi ngi mel ni affaire u aj màkk geeg nga xam ne sañoo ci soppi dara mbirum yor kër de mu wut noonu de mbirum yor kër mel nu julli nga xamante ni julli moom da ngay lépp moom da nga koy def comme ni ko julli gi jàngalee sañoo def sa yëfi bopp mbirum yor kër mel wut noonu de loolu boo ci bàyyiwut xel moo tax it boo seetloo ndaw yi ndeysaan kër yëpp a yëngatu lu ko waral moo tax xamuñu lay ba génn ci léeg-léeg am na yoo xam ne da ngay laa yàlla yàlla lay ba génn ci waxuma la nga wax lu dul dëgg nag waxuma loolu waaye lay ba génn ci bokkut ak wax lu dul dëgg Abdullah ibn Rawaha ku yàlla mayoon la ci askan wi mu bokk mu nekkoon ku mën a way waaye nag bi yàlla nammee ci moom yiw ba yonent bi yabalee saxaabi bu mag ba ñuy wax Mus'ab ibn Umayr ca Madina muy woote Mus'ab ibn Umayr jàmbaar ju am xel la woon ñu bare bare bare ni mu leen xëccee xoola Saad ibnu Ubaada ak ñeneen ak ñeneen bi ñu yëkkatee jaasi fekk ko ci Madina nar koo caw lan la leen wax yow kilifa nga kay am ngam xel toogal déglu li may wax su fekkee convaincre na la nga jël su la convaincreul nga jug dem dootuma la ko waxati mu ne ko yow wax dëgg yàlla ku wax ku am xel nga daal di toog déglu ndekete yëf yi toog déglu lay bañ ndekete affaire yi toog déglu lay bañ booy toog di déglu daal moo tax li li tax muy bañ toog déglu moo tax gars yi ni woon tufay tufayl ibni amrin ad dawsi gis nga yonent bi kaddu yi muy wax comme njabar soo demee bu ko déglu moo tax tufayl dégg ko daal di jël coton saan ci ay noppam ndekete yëf yi coton mënu koo téye gis nga de tufayl daal di saañ nopp yi ak coton affaire bi léeg-léeg mu dégg li yonent bi wax léeg-léeg du ko dégg ba am yàgg mu ni man daal ku ñàkk fayda la magum jëm mu doy ni man ak ni ma ameem xel ba suñu waa dëkk wóolu ma ñu may wax li waaye affaire naa ko sànni ma déglu li muy wax lu mu doon man ndekete affaire yi bul déglu lay bañ gis nga moo tax gars yi daan wax laa tasmau li haza alqurani walgaw fii alquran ji bu leen ko déglu bu dee yonent bi day wax sar xolle leen sar xolle walgaw fii laallakum taxlibuun moo tax gis nga yow miy jottali njub jottali rek yow gis nga yow jottalil dimbali koo yàlla gis nga di nga wax benn waay benn kàddu mu jug mer daggoo saaga ndeke kàddu googoo ko nar a gindi xaw ma li ma wax ndax leer na wala déet gis nga di nga wax ak benn nit benn waay kàddu gi bu mer ci saaga ci jug dem nga yaakaar ni yow échec nga fekk kàddu gee ko nar a gindi maanaam fi tension xolam toll mooy wax lu bon ak saaga ci jamono jooju waaye kàddu ga nag am na place ci xol bi bu xësee ba ne dagaj ci biir xol bi du gaaw a génn day tëdd mu tere koo nelaw loolu borom xam-xam yi nga bi xam dañuy bind ci attaibuna ila allah gaa yi nga xam dañoo jot a tuub kenn ku ci nekk ku la wax histoire am ak kàddu gi ko tax a tuub waaye ci ngay xam ni la yàlla waxoon rek mooy dëgg in alayka illa al balaag yow daal jottali moo la war jottali jottali bu rafet rek nekke Musab ibni Umayr li mu doon wax àgg na ci xolub waa jii di Abdullahi ibni Rawaha ndeysaan mu daal di tuub départ jëm si Makka bi mu ñëwee mu daal di aj dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog omra comme moo amoon jamono jooja tàllal loxoom yonent bi saa sallam jaayanteeg moom daal di tàbbi ci lislaam moo tax mu fekkee bayatul aqabati thaniya te fekk booba jullit ñi gàddaaya gu ñëw madina abdullahi ibni rawaha bi yonent bi gàddaayee madina makka ñëw madina li gaar saxaaba yépp moo ko gaar daanaka néew na saxaaba yi koy jàng dundam lu dul dañuy wax ni bis bi mu gën a am mbégte ci dundam mooy bis bi yonent bi ñëwee madina loolu moom daanaka dañ koy waxal ñëpp ndax xam ngeen ni bis la woon bu rëy boo xam ni la abbas waxoon la abdullah ibn abbas waxoon mu ni madina dafa leer nañ ñi leer gu mësta leer keroog ba fi yonent bi dugg see waaye dafa lëndëm këruus lëndëm gu mësta lëndëm kere bu yonent bi faatoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nga ni bëtëb ndeyjoor di àndeeg bëtëb càmmoñ fu ñu jëm ñu ànd suñuy nelaw ñu bokk ko suñuy xool ñu bokk ko borom xam-xam yi noonu la ñuy misaalee taqoo gi yonent bi taqoo woon Abdullah ibn Rawaha taqoo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon défendre l'islam bi sayfihi di ko défendre bi lisaanihi di ko défendre timit bi maalihi ci alalam ci jaasim ak ci làmmoñam doy na mafxara doy na mbégteeg tiitar ñu ne la Abu Darda yaa ko dugal ci lislaam allahu akbar te fàttaliku leen mbokk yéen a ngi fàttaliku ni waa joo góorgóorlu ba mu tàbbi ci lislaam mbaa mu ñëw ci sunna mbaa daawul julli mu daan julli yëgal ni fii la tax nga def ko yàlla moo tax fii ba malaaka bi wal ci bëfte bi mbaa waa ji jóge fi jaamu yàlla gu mu am nga am ci pourcentage la an yahdiya bika allahu rajulan wahid waaxida xayrun laka min xumuri naam loolu est ce que kenn ku ci nekk ci ñun mbokk yëg na loolu man naa fexe ba yowmal qiyaam bu ma gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinaa ne ko diw sàngam mii moom maa ko dugal ci sa diine ci loo gàtt gàtt koo présenté présenté benn nit yonent bi diw sàngam mii moom maa ko dugal ci lislaam loolu moom defe naa jàpp naa ni addina bi li fi nekk ci julit kenn ku ci nekk bu garanti woon loolu yéefar jeex yéefar jeex waaye kenn ku ne du ko mën a garanti parce que yéefar du fi jeex moo tax yaafus yee dellu gannaaw jàmbaar yee jëm ca kanam abu darda xool ko ni mu toll abu darda boo ko yëkkate woon teg ko ci kaw balance li poids bi muy yore ak kan mooy abu darda nga xam ne xamoon nañ ko ndax dundam jàll na ci dars yi passé abu darda ak abdullah ibn rawaha li wolof yi tuddee xaritu benn bakkan lañ woon maanaam foo gisee abu darda da nga fa gis abdullah ibn rawaha foo gis ibni rawaha gis fa abu darda muy ñaar ñoo xam ni ni takk ndee di takkale morom ma ñoom ñaar noonu lañ meloon yàlla def lislaam ñëw abu darda des ca kéefër ga allahu akbar ibni rawaha dugg ci leer gi ndeysaan abu darda comme moom dafa taroon tar gi maanaam ngëm yàlla gi fi mu toll fulla jooju moom la amoon ci ceddo ga moo tax seetlul xiyaarukum fil jahiliya xiyaarukum fil islami tafaqahu boo seetloo nit ki ni muy mel ba mu nekkee ci ceddo ga soriwu ko woon abdullah ibn rawaha di ko laabiir di ko ubbeeku bi mu duggee ci lislaam daal di seen abu darda di ñëw mu daw di ko kott pour di ko wan ne dugg naa ci lislaam mu ne ko bu ma laal de bu ma laal de mu ne ko nga ni mu ne ko bu ma jege laa wax sa lislaam wax lu bon sori ma bis ni ki tey dammoo nañ bant man ak yow man dugguma ci lislaam duggaanuma ci lislaam demal nga dund la ngay dund ma dund abdullah ibn rawaha jëm kaw jëm suuf mu ne ko bis ni ki tey jeex na ma ak yow waaw diinay lislaam ji ku ci dugg man sama xaritoog yow jeex na nekkate moom ci la war a dugg si moo tax booy wax waxal loo xam de booy wax waxal loo xam moom laay wax gars yi tamit gis nga ku nekk ci caay-caay soo koy bañ amal limite parce que mën naa ñëw gis nga looy def amal wasatiya gis nga waa ji nga bañ ndax da di yéefar da di nangam nga bañ ko bañ ko ëpp bu dugg see ci lislaam da ngay am problème xaw ma xam ngeen loolu wala déet parce que mbañeel gi bala nga koo rocc ba mu set dina dugg si lislaam een bi des ba tey moo tax yàlla mu ni ñaari kuréel ci jullit ñi bu ñu jotee àtte leen leen su amee ku dëgër bopp weñ leen loxoom rëq ndikkam bu delloo gannaaw nag na ngeen ragal yàlla ngeen maanu lu jafee ngoo ndax ñaar ñiy jote nga àtte ñuy jaay dëgër bopp kii di jaay dëgër bopp nga ànd ak kii pour ñu weñ loxol kee jamono ba ngay weñ am nga tuuti een boo jàppaale een booba lañ bañ nag mu des te lu jafee dindeegoog nag lu jafee dindeegoog léeg-léeg nañuy jàng aayaat yi dem rek waaye affaire yi yombut de comme niñ ko foogee ndeysaan Abu Darda des ca kéefër ga Ibn Rawaha continue ci lislaam benn bis Abu Darda commerçant la woon mu daal di génn ci njàlbéenu mbiram mu daal di génn dem ca cantine ba muy jaayee bi mu wàccee ñëw këram rek fekk fa njaaxum goo xam ni mosu koo foog njaaxum ga mooy lan mooy yàlla jam sampoon ca kër ga la ñëw fekk ko ñu wal ko ba mokk rumbux jalal ko ko ca ëtt ba nekkete abdullah ibni rawaha ak muhammad ibni maslama ñoo fa jaar ñoo bàyyi ba mu xëy ñu xam ni heure bii du fi nekk ñu jàpp ko fekk kër ga dal di jàpp yàlla ji xirim ba wal koo wala wala wala wal ba mokk rumax jal ko ci ëtt ba abu darda bi mu dugg see dal di tiit dal di mer ni tekk waaye nag gis nga bu la yàlla naree gindi bis bu mu lay gindi xoolal mu ni tekk di xool xerem ba mu yàgg mu ni ko hallamta naata allah dafaata an nafsi yow lan moo tax biñ lay toj fayoo yow ki la def lii xanaa booba da nga koo gisut yow soxnaam daal di génn ni ko abu darda xam nga ni kii bu amoon njariñ lu muy joxe boppam la koy jëkk a jox balaa ñu koo wal fii ndeke kàddu gi nee na rill ci biir xol bi abu darda taxaw fi mu taxaw mënta bouger mu taxaw di xalaat ci kàddu gi taxaw di xalaat xoolal kàddu gi ni mu dalee bu amoon lenn lu mu mën a fegal kenn ba moom kenn du ko wal moom moo daloon amr ibn al jamuux ah moom sax moo ko waxal boppam ndax moo ne woon yàlla ci xam nga ni yow mi boo amoon njariñ gaa yi la fekk fii di la watat ñaari fan di la tàbbal ci àll ba kon di nga fegal sa bopp mu ne soxna si tànqal ma ndox mu tànqal ko ndox mu dugg sangu génn sol benn manto jëm ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdoulaye ibn rawaha da koo séen nag ni tey rek laay dee abdoulaye ibn rawaha da koo séen rek ni tey rek laay dee parce que li tax mooy fi mu tojee xërëm wi ak fi muy ñëwee ci yonent bi benn la kon moom tey rek laay dee fi sës abdoulaye ibn rawaha jege si yonent bi ni ko tey rek la ñuy dee yonent bi ni ko doo dee de yàlla dig na ma ni kii day tuub si allahu akbar ni ko doo dee de yàlla dig na ma ni kii day tuub si mu ne inna rabbi waadani bi islaami abi darda yàllaa ma dig ni abu darda day tuub si rek ibni rawaxa gën a dolli mbégte abu darda yegg si tuub dugg ci lislaam waaye gis nga nag mbaax googu jaa yàlla jaare ci loxol kan abdulahi ibni rawaxa du ko ko fàtteel mu ko gis nga nit day am ngor nit ku baax day am ngor jullit day gore ba xëy faatu gor dëgg du fàtte démb ak lu la naqari nag ca gannaaw ba doo fàtte démb ñu bari ci ñun amuñu kóllëre parce que dañuy fàtte démb sa gindeeku sa xetaliku sa ñëw ci sunna sa ñëw ci lislaam sa am xam-xam sa lépp loo xam ne lu lay mën a jariñ sa diine la ka yàlla ka ko yàlla jaarale ci loxoom kooku waru ko fàtte ila axir ramak ba keroog ngay faatu ñun nag loolu ko am kóllëre ko man abu darda la doon wax ni audu billahi an yatiya yawmun la adkuru fihi abdallah ibni rawah maa ngi muslu ci yàlla bis boo xam ne xëy naa suba ba ngoonte fàttalikuuma kan mooy ibni rawah ndax rek lim ko defal gis nga nit day am ngor di fàttaliku démb nit day am ngor di fàttaliku démb gis nga abdullah ibni rawaha moomu abu darda néew na jataayam nga toog ba jug lu dul dana ko tudd lu tax ndax gindeekoom ci loxoom la ko suñ borom jaarale ku ragaloon yàlla la moom abu darda waaye ku ragaloon yàlla la moom ibni rawaha abu darda mooy nettali nee na fàttaliku naa ay yoon dañuy nekk ci tukki ñu nag yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci bis bu tàng lool nee na yonent bi rek mooy woor ak abu darda ak ibni rawaxa kese loolu nag boo ko booleeg xadis yi wax ni tukki ci woor gënut tukki di woor gënut lii ca njàlbeen gëla woon amoon na yonent bi daana ko def waaye mu jëntal gi moom li gën mooy nit ki buy tukki mu bañ a woor ndax laysa min al birri as-sawmu fi safar bokkul ci mbaax woor ci tukki ndax yàlla moo la ko teggil kon la gën mooy nit ki buy tukki mu bañ a woor donte bu wooree kenn du ko wax dara nag waaye nag bañ koo def moo gën wa in kuntum ala safarin ne ko suñu borom waxee ci suratul baqara su fekkente ni nit ayyaama maadudaat fan kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar jaamukatu yàlla bu mag la woon abdullahi wala ibni abi layla nee na benn waay bi mu déggee ni abdullahi ibni rawaha dafa faatu nee na dafa dem labat soxna ibni rawaha takk ko bi mu ko takkee benn bis mu ne ko yow xa est ce que xam nga lu tax ma takk la mu ne ko déedéet mu ne ko yàgg dégg ni góor gi ku kéemaani la ma am secret yu ma bëgg a xam ci moom ci nu mu doon jaamoo yàlla te mënuma koo xam lu dul dama laa takk loolu dong nga tax ma takk ak kabaari lu mu daan am ci salafu saalih ah nga gis koo xam ni jommal na la ci jaamu yàlla nga am mbir yoo xamul ci moom soxnaam faatu ngay xaaral ma takk ko ngir lan ngir bëgg a xam. am na ñu am fulla nag soxna yu am fulla yoo xam boo ne leen takk ñu ne déedéet alaaxira rek ndax yonent bi dañ koo laaj ni ko jigéen boo amee ñaari borom kër bu duggee ajana kan kan la cay nekkal yonent bi mu ni mu ni ku mujj ka moo taxit ñoom abu darda bi mu faatoo moom abu darda di xarit bi xam nga kee moom xarit ba def na lee abu darda moom bi mu faatoo buur muawiya sax ñëw na di ko labat di labat soxnaam soxna si ni ko déedéet damay jaamu yàlla pour xaar saa waa ji fële keroog bi mu tolloo ci sukuraat dañuy abu darda yow day yaama labatoon ci sama baay takk ma maa ngi lay ñaanal nga tàbbi àjjana man nag fi mu ne nii yaa ngi dem waaye maa ngi lay labat ci suñu boroom ngir nga takk ma bu ma faatoo tàbbi àjjana ñu dajaf allahu akbar xoolal ñii fi ñu yeggoon xoolal ñii seen programme fa mu tolloon ndax ñun li ñuy programme teg mooy seen programme laa wakal la wallahi du seen programme te dañoo mën ay soxla comme ñun am ay bëgg-bëgg comme ñun am ay aajo comme ñun lépp waaye nag ñu bàyyi ko ngir am ngërëmal seen borom subhanahu wa taala keroog bi aaya ji wàcce muy wa shuara yattabiuhum algaawun te tafsiroon nañ ko surat shuara ibni rawaxa dani yàqu na man yàqu naa moom yàqu naa yàqee ndax wa suara waykat yi yattabiuhum algaawun mooy ñi leen di topp ñépp ñu bew la ñuy doon foo seetlu ab waykat rek ñu bew lay àndal alam tara annahum fi kulli waadin yahimun fen moom ab waykat a ko dàq mooy waykat yi nga xam ne tegewuñ ci lislaam nag moo tax mu ne wa aktharuhumul kaadibun ah li ëpp ci ñoom rek luñ la wax du dëgg defe naa ba ma koy tafsir waxoon naa leen boo bëggee wër ku mën a wax lu du dëgg rek wëralu boykat ndax léeg-léeg nga dégg gars yi di wax loo xam ne xam nga ni lii moom même bu fekkonte du way gaa araam ak musique baag yooyu sax la ñuy wax donc fen ya ca nekk rek ca ngay xam ne lii moom daanaka moom loolu moom ittafaqa alayhi al-uqala wal ulama bi mu waxee loolu nee na bi aaya ji wàccee illa alladina amanu wa amilu salihat yàlla mu ne ba mu des gars yi nga xam ne dañoo gëm yàlla nga xam ne way yu gëm yàlla la ñuy way amul instrument amul musique amul xalam amul riiti amul dara te it amul wax lu dul dëgg te it wax amul waxi xaabaabal te it amul wax lu islam di tere. Ibn Sirin nee na ña doon way ci jamono yoon sa salaam Hassan ibn Thabit la woon Abdullah ibn Rawaha ak Kaab ibn Malik Hassan dundam jàlloon na Kaab gis ngeen ko borom baanat suaadu ah ah Kaab ibn Malik borom ka tardé woon tabu. ak kaab ibni zuhayr bonam baanat su aadu nga xam ni way woowu ila yawmina hada ñiy jàng luga daf leen a yéem ba tey ah way woowu ba tey ci suba ñiy jàng luga ci faculté arabe yi ne ci àddina yépp way wa daf leen a yéem ba tey lu tax la ca nekk ci bayit boo jël nag satr boo jël la ca nekk ca luga da nga yaakaar ni kii moom keroog moom dafa am lu ko daloon keroog xam nga ni di wax yonent bi saa sallam ba yonent bi summi manto bi mu soloon bu vert solol ko ko kooko wax na wax na wax na jàmm keroog de ah ndax da doon saaga yonent bi saa sallam di ko wax lu bon ba yonent bi ni fuñ ko gis nañ ko rey benn xaritam ni ko ñëwal maa lay làq ba ci yonent bi du la rey mu masque wu ñëw ba ci kanamu yonent saa sallam yonent bi ni kii du kaab rek saxaaba yi tëb mu ni bàyyi leen ko man maa ko ajartuhu ijaara mooy benn saxaaba bu ñëw mu jël benn jullit ni man maa ko aar bu ko kenn laal jullit ñi kenn sañu koo laal loolu moom lu ñu respectante woon lañ seen biir nit la woon koo xam ne ibni rawaha ku amoon wegeel la comme ni nga xam ne naafiq yi la ñu amoon na ko reewande la jëme ci yéen sasalam benn bis ginnaaw bu yonent bi gàddaayee ba saad ibnu obada feebar yonent bi jug di seeti saad ibnu obada war mbaam ah daal di togg Usaama ibn Zayd ni ko kaay gunge ma mbaam mi daal di ñëw ba romb palaasab Abdullah palaasab Abdullah ibn Ubayy mi salul muy Aba Xubaab dinaa fekk bu bon boobu mu daal di jël mbubb mi daal ni nii xetu mbaam bi waaye oo xet xet kii xetam gi daal di wax lu bon ci mbaamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ibni ubay ibni salul moo tax ibni kathir xam naa ibni kathir dama xool bi muy tarjamaal ibni salul muy dëgg dëgg kii da koo jéppi nag bi muy tarjamaal dani abdullah ibni ubay ibni salul qabahahu llah xam nga qabahahu llah moom ku ko arab wax rek jéppi na la maanaam xam nga ni da lay jéppi xool la xool xool du xam benn baat bu mu lay wax gis nga yenn xeeti ci poto yi bu la ko nit ci poto rek moo lay wane bu la mënoon a jam dana la jam qabaxahu llah ku bon a ngoog bi loolu amee mu ne yonent bi salaa salaam bu fekkee da nga am looy expliquer ci diine ji da ngay dem nga expliquer ku ña la topp waaye fii moom bul ñëw di yàq suñ jataay bi abdullah ibn rawaha jug ni ko yaa ka mën a kàcc waay yonent bi waxal lu la soob ba mu neex la nga doog a dem sa yoon coow li jug ba gaa yi jug nar a xeex yonent sa salaam dalal leen bi mu leen dalalee nag ñu daal di toog nee na bi ñu toogee ah benn waay bu ñuy wax saadu mooy saadu bnu abada moom mi ñu seeti woon bi ñu yegsee daal di ko koy nettali saadu daal ne yonent bi xam nga loolu lu ko waral mu ne ko déedéet mu ne ko avant ngay gàddaay di jóge màkka ñëw madina daa fekkoon ñu préparé musóor akub sees pour tongtongal abu xubaab ndax moo waroon a nekk kilifay madina léegi nag ñëw gi nga ñëw moo waral saxaaba yi fomm ko loolaa ko naqari allahu akbar gis nga bari waa na koo gis muy waxal diine nag di wax lu bon di wax waa diine lu bon ah sees ba mu toogoon na tànk yi tàmbalee dam li ma wax nag jarul leeral defe naa ay wolof yu leer nañ la léeg-léeg nga gis nit nga di ko woo ci njub mu bañ tey wax lu bon ci waa sunna sees bi mu toog moo commencé yang xam ngeen bañ bu yang di yëngatu di waaj a damm gis nga ibnu ubay ibnu salo bu yonent bi ñëwuloon madina mooy nekk kilifa ga ñoom ñépp ndax kilifa la woon gu mag te dañ lay tongtongal nag jox la cër waaye ba gaa yi gisee yonent bi lañ far fomm ko loolu la arab yi nan isa jaa nahrullahi batala nahru maaqilin maaqil daa yoralu dex di jaay ndox ma seeral ko lool naqari deret xamadi réew ah ñu koy jëndee paan lu seer ñu toog ba ngoon jot rek su waay dëkk bi tawa tawa tawa taw ba wala ngaan bëgg am ndox bañ am ndox benn waykat di ko xoolum yàgg muy dëgg dëgg yàlla bu waleeg dex daal sag dex ne naax saay yàlla bu yoleeg ak dex sag dex naax saay gis nga mu ni ko loolu moo waral nga gis muy mel nii mu mel benn bis xam nga ne Abdullah ibn Rawaha bokkoon ci saxaaba yi mënoon li ñu tuddee xars yéen ñi doon jàng dural lu bahiya ci buntu zakat ku may fàttali lan mooy xars ah da ngeen di lekk bopp jën xanaa jàngkat nee na booy lekk bopp jën da ngay gaaw a fàtte de xars mooy technique bu garaaw la gis nga bu fekkee azaka daa jot wala yéefar yi impôt bi ñu war a joxe xam nga mën nañoo bàyyi ba jaay seen tooli tàndarma yi ba noppi ñëw ni la tool bi kat 500000 la génne fekk du dëgg ëpp na ko gis nga am na ci techniciens yi ci saxaaba yi moo tax gis nga yonent bi wallahi lu ne yàlla waajalal na ko ci biir saxaaba yi gis nga am na saxaaba yoo xam bu ñëwee tool bi la ñuy wër xoolal bu ñu wëree tool bi xool tàndarma ji mais ñëkk yëgul de mais ñëgul de tóor tóor rek laa tóor tóor ba commencé génnee doom bu ñu wëree tool bi dañ naan tool bi war naa mën a génn nangam te lañ wax mooy am loolu mooy tuddee xars xayma jazakumullahu xayran xayma dañuy xayma tool bi gis nga bu ñu waree tool bi ni tool bi un million deux cent lay génne boo ko seetloo ba ca biir du ko sori xars noonu lay amee ci xare gis ngeen Umayr ibni Wahb ba gaa yi ñëwee Badar yéefar yi ñu naan jullit ñeeg yéefar ñu ko fekk booba ma nga ca yéefar yi tuubagul dugg ci lislaam ñu ne ko xoolal ñu yéefar yi nuñ toll dafa ñëw ni nii niwaat nii ni ñetti téeméer yi de moom li ma wér te wóor ma mooy ñett cay ëpp mbaa ñetti manqué ca mbaa ma ñetti téeméer yi ah fukk ak nangam a cay ëpp wala fukk ak nangam yées ca te waxee dëgg ndax julli ñi boobu ñetti téeméer la ñoon ak fukk ak ñett te xoolal nii rek lay def de moom daal affaire dafa mel na nga xam may yàlla rek subhanahu wa taala xars day ñëw wër tool bi su wëree tool bi mu ne tool bi war naa génne nangam gis nga bis bu génne azaka wala génne impôt yi jotee borom tool bu ñëwee wax lu amul rek dañ koy xam ibni rawaxa bokkoon na ci gars yi gënu na man loolu moom la ko yonent doon def loo ba ni mu faatoo ca muqta ci la am keneen ku ko remplacé benn bis dafa ñëw xaybar di xayma gars yi bëgg koo ger ñii dem génn seen or yi jabar yi ñii dem génn xam nga andarma ji lim doon génn day bari daal di ñëw bi ñu ñëwee daal ni ko xam nga nan ngay def xaymaal lu yem rek boo demee ne yonent bi affaire bi nii la demee te nga jël lii dugal sa poos noppi mooy lii am tey la hawla wala quwwata illa billah waa ji nga xam ni moom day day xaw ma contrôle économie la day ñëw ci borom boutique bi mu daal di koy yëkkati 1000 francs jox ko porte sardine bu bu bu nëpp bu fa nekkee ak yooyu yëpp moom yoonam newu ci wor nga yàlla wor ab yonenteem wor jullit ñi la wóolu wor fonction bi ñu la jox te it am nga bàkkaar te loola képp ku ko jëfandikoo mu loru ca bàkkaar ba da nga cay am boo ñëwee ci tali bi moom léegi moom defe naa yéen yéen a ma gën a xam saa booy wàcc seen safoor bi daal di jël permeem rek xoolal da ngay seet mu génn benn affaire daal di ciy dugal daal di wàcc du du nangu sax nag ñu ñëw ba ci biir oto bi nag parce que boo dañuy xam affaire yi ni mu demee daal di ñëw jox la ko bu ko defee nga gis waa ji di ngand ngandulu di geesu geesu du xool xoolu daara day làqatu fu mu jëlee 1000 francs bi rek seetlu ngeen ko da ngay safar bi daal di wàcc daal di ñëw daal lay jox permis bi nga gis mu commencé naan nii di nit nit lu jox ma assurance foofu jox ma nangam fekk jox ma jox ma jooju yëpp jox ma 1000 francs bi rek la xamees na ci loo xam ni du maa kullu maa yoo la mu yuqaal gis nga am na ci barab yoo xam ni la fay génnee day fay ay salaire laa wax maa la ko wax lii ku ko xam ku ko xam koo xam ni kenn nettaliwu ko moom a ko wax la fay génne day fay ay salaire laa wax képp ku garde xam nañ montant bi nga war a indi ba pare ñuy xeex ger kañ la fi ger di jóge gis nga de nga gis waa joo xamante ni moom dañ koo yónni ci benn fonction pour mu war a ñëw daal di contrôler ah xaymaal tool bi ingénieur nga wala demee na xaymaal tool bi ñaata la ñu xool ñaata la war a fay bu fekkee gis nañu tool war nañ cee fay nangam ndax yaatuwaay ba mu daal di wàññi yaatuwaay mesure ba wane ne nangam la secteur boo dem lii nga fay fekk mbokk biñ ko joxee ibni rawaha radiallahu anhu mu ni wallahi innakum la min abgadi xalqillahi ilayya yéen kaw suuf ñi ma gën a bañ ci kaw suuf yéen la ah wa ma daaka bi xaamili ala an axiifa alaykum loolu du tax mukk ma jeng ci li may àtte lii ngeen di jox jox tee leen ko gars yi xool ko ba mu yàgg ñu ne ko bi hada qaamati samawaatu wal ard dëgg dëgg dëgg nii ngay def ci la yàlla taxawalee asamaan ak suuf muy maanute arrahman allama alquran xalaqa al insan allamahu albayan alchamsu walqamaru bi xusban wannajmu wa shajaru yasjudan walsamaa rafaaha wa wadaa almisan mu ne alla tatagaw fi almisan gis nga lii saa buñ la ko joxee nga lekk ko yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bépp biir boo xam ne dugal na ci biiram lu mel nii muy assoxtu fa naaru awla bi muy na yëg ni sawaraa gën a yey ci moom ñaata ci ay nit lii may bëgg a wax moom kenn nettaliwuma ko am na barab bi may jàng ci barab sàngam barab ba am benn boutique ma ne ca boutique ba am na benn waay boo xam ni day doon tabax lu këram ci ñii la bokk day ñëw ni ma bu gaa yi wàccee joxal ma leen trente mille léegi ma jox leen trente mille quatre heures six heures balaa jot mu ñëw su mu way jóog ay mille franc mille li kenn nettali wu ko li may wax nii boobu sax xaw ma sax luy sunna booba dafa doon jàng doonu rek ndax yàggaay bi ndax ëpp na daanaka jege na ñaar fukki at wala ma ëpp ko booba laa xam ne ndekk di yëf yi nii la demee kii li may wax nii kenn nettali wu ko pour wala ci ci lii la doon dund nag saa bu gaa yi wàcc ma jox leen rek bu ñu wàccee day ñëw ci laa doog a xam ne ndekete kii ci fii la koy jëlee xoolal lii mbokk yi ku ci tabax kër ku góog kër fu mu nar a mujj xoolal lii ku ci takk jabar jooju jabar fu mu nar a mujj am na ci benn waay boo xam ne dañ ma koo nettali sama benn xarit moo ma ko nettali nee na ma ku daan def yu xaw a mel nii la xam nga fan la mujjee wallahi yàlla da ko na too feebar dafa dem ba am sawam mënatu koo téye jàkk sax dafay dugg di saw dafa mujj bàyyi jàkk ja léeg-léeg xawaatim sayyi ala ñuy am su fekkee nit ki mi ngi lekk loo xamante ni lewut lii nag da nga koy jàngee ci dund saxaaba yi ci moytu gi ñu doon moytu ibn rawaha yonent bi seedeel na ko nee na inna axan lakum laa yaqulu rafatha ibn rawaha yonent bi mu ni seen menn mbokk ngi moo xam ni lum la wax rek jàppal moom gémmiñam du caaxaan allahu akbar xoola bi shahada mbokk yi seen mbokk ngi moo xam ni lum la wax yonent mu ni fabal parce que du faral di caaxaan ci ay wax moo tax moo doon wax fii naa rasulullahi yatlu kitaabahu ida nchaqa maarufun min alfajri saatiu araana alhuda bacda alcamyi fa qulubuna bihi muuqinatun annama qaala waaqicu yabiitu yujaafi janbahu can firashihi ida stathqala bilmushrikina almadaajicu ab yonente ngi boo xam ni moom de mi ngi nuy jàngal téere yàlla bi saa boo demee ba ah jant fenk ah bis boo xam ne jant ngi fenk maam li mu bëgg a wax rek mooy bis bu nekk rek ma ngay am moo ñu wan njub ginnaaw boo xamante ni dañoo silma xawoon ay xol ñun de am nañ kóolute ci ne li muy wax lépp dëgg la sallallahu alayhi wa sallam moom day yabiitu day fanaan yu jaafi an janbihi janbahu an firashihi nee na day wet gi day jéem a sori sorelu lal bi ndax bëgg naafi la nee na jamono jooju nga xam ne yéefar yi ñoom dañuy tëdd du- dañuy biddanti ah dañuy tëdd ba biddanti fekk yonent baa ngi jug naafi la guddi sallallahu alayhi wa sallam xasaan ibni thabit keroog ba yonent bi dugg màkka ca umratul qada wala abdullah ibni rawaxa moo doon wax xallu bañil kuffaari an sabilihi alyawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu lhaama an maqilihi wa yuzhilu lxalila an xalilih omar ni ko tuug waay bu ma ko déggatee rek nga dee mas ngaa gis ñëw ba ci pegg kaaba gi naan da ngay way yonent bi ni ko eh baal jàmm allahu akbar ni ko eh baal jàmm omar def na ko ñaari nit def na ko xasaan xasaan di way taxaw ci kaw minbaru yonent bi di wa- na- nekk ci jàkka ji di way Omar ni ko eh génnal jàkk ji te nga tëj sa gémmiñ bàyyi sa way yi Hassan siggi ba xool ko ni ko way naa ci barab bu gën a tedd fi ma taxaw muy min barba way naa ci kanam ku la gën a tedd muy yonent bi te waxuma dara Omar ni tekk daal di noppi bi Omar waxee loolu yonent bi ni ko bàyyi ko ca la ko waxee ni ko fa wallazi nafsi bi yadi la kalaamuhu ashaddu alayhim min waqai nabl gis nga lii muy wax nii moo gën a diis bali fett ci kaw yéefar yi ha yéefar yi bu ngeen bëggee jàmm bu yeboo ngeen xàllal yonent bi bàyyi ko mu jàll tey de dinañ leen dóor ay aaya bam saf saf ba ngeen xam ne lii alquran la su ngeen ko su ngeen amul sens nag buñ jàllee ca dóor yee ca des danañ leen dóor dóor yoo xam ne dinañ teqale diggante si di tibaat ak morom ma wa illaa boog dinañ leen dóor dóor yoo xam ne kun njëkk a dóor xarit bi dinañ waqit daw yonent bi ni kàddu yooyu moo gën a ñaw ci yéefar yi ah li nga xam mooy ay bali fet nit la woon koo xam ni jàmbaar la woon xam ngeen ni ku yonent bi tànn def ko généralu guerre kooka ku rëy la ndeysaan ci atum juróom-ñetteel ci gàddaayu yonent bi sasam fekk yonent baa ngi dund benn xeex dafa taxaw bu ñuy tuddee muqta muqta nag mbokk yi xeex bu metti la muqta xeex bu metti la ah ñiy liir ci siira ñépp ñi xam siira xam nañ ni mu'ta ci xeex yi gën a metti la bokk ma ngeen mu àddin koy noonu kon ci atum juróom-ñetteel ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la xeex bi amoon dinaay wax mbokk yi ni yàlla xam na ni xeex yu mel nii nettali ko sax dafa metti nettali ko sax dafa metti gis nga xunayn mu'ta ak fitna yi doon am ci saxaaba yi damay wax ni ku mënoon booy nettali nga di ko tëb da nga koy tëb parce que dafa metti léeg-léeg nga dajeeg xare yoo xam ni yow aji liir ji liir rek xaw tuuti kon rek doo mën a téye sa bopp la ko waral mooy xeetu mettit yoo xam ne tàbbi na ci kaw jullit ñi yow boo ko nattee ci sa bopp bu dee dëggu mi ngi ci yow da nga rus parce que da nga xam ni yii moom ah góor dëgg moo koy dékku mubta xeex la woon bu metti ñu war a dajeeg romain yi waaye li gën a yéeme li gën a yéeme ñaar téeméeri junni ñatt téeméeri junni yéefar yi matoon nañu ko julli ñi nekk ñetti junni kese ñatt téeméeri junni xoolal ñaari téeméeri ci ay junni ndax romain yi rek mat nañ téeméeri junni force bi ñu wuti ca àll ba mat na téeméeri junni muy ñatt ñaari téeméeri junni moo tax bi julli ñi ne tëll ca barab ba xam ni xabaar yi nii la demee rek dañu rekkile tuuti fanaan ñaari guddi yoo xam dañ doon suuraa ba nan la ñuy def parce que dafa métti keroog am na saxaaba yoo xam ne dañoo daw dañoo daw lu tax parce que dafa metti ñoom ñoo ñëwoon ci Madina ah ñëw ci Madina rus mënuñoo yegg si Abdullah ibnu Amar ca la bokkoon ñu rus mënuñoo yegg si bi ñu taxawee taxaw mënuñoo yegg si Abdullah ibnu Amar ne nañ leen dem buñ demee ne yonente bi sallam mbir mi nii ak nii la demee buñ ci wax benn baat bu amul yéen fu ngeen lu ngeen def ñu ni ko dañoo daw mu jeex gaa yi bàyyi ba yonent bi dem jàkka ji rek ñu kot ko ci yoonu jàkka ji waa ñu ñan la mu ni ko ñun ñooy dawkat yi dañoo daw xare yonent bi ne leen daw leen de da ngeen a gis lu leen jaaxal ngeen rekki la dem ca fa ñuy wutee doole allahu akbar jigéen ñi xam ngeen ni ñoom ñoom moom daanaka moom saboote ak wax njaaxum rek lañ man di sëllëx di leen sëllëx suuf alfaraaruun alfaraaruun tappet yi ngeen doon seen moroom yi góor yi xare yéen ngeen di daw yonent bi naan leen eh laysu bil faraarin innama humul karaaruun dañoo wut si doole gis nga ku mënoon a jàngale la sallallahu alayhi wa sallam xoolal kooku ku ngëm yàllam toll foofu ak saxaaba yi niñ meloon buñ gisee lu leen jaaxal ba ñu reculer rek am na lu xew xam nga ni téem ñaari téeméeri junni war a dékku ñetti téeméer loolu loolu kéemaa nga yonent bi ni yow Zayd ibnu Xaaris yaay général bi soo faatoo na Jaafar jël drapeau bi soo faatoo na Abdullah ibnu Rawaha jël drapeau bi benn saxaaba ne ba ko yonent bi waxee laa xam ne ñëppay faatu benn waaye bu ñuy wax Noomaan daf ni ko yonent bi day yem gi nga yem fii baax na amul yonent bu yàlla mas a yónni muy désigné ay général lu dul bu doon tudd ba téeméeri nit saa bu ne boo faatoo diw jël rek ñëppay faatu Noomaan moo waxoon loolu yonent bi daan ni boo faatoo muy nu mu tuddati Zayd ibn Xaarisata di papay Usaama na Jaafar jël bu Jaafar faatoo na Ibn Rawaha jël bu Ibn Rawaha faatoo mu ne jullit ñi xool leen ku leen doy daal di yem foofa ku am fiq la sallallahu alayhi wa sallam gis nga bu continué woon mën naa am faatu ga di continué rek général yi faatu ndeysaan Abdullah Ibn Rawaha daal di bi ko yonent bi tuddee rek mu bënn bët yi jooy gaa yi jàpp ne mu dafa doon jooy ngir ragal ñu ni ko waaw yow lan ngay jooy mu ne wallahi jooyuma li ngeen di yaakaar déedéet aaye ji sunu borom naa wa in minkum illa waariduha moo ne suma xel mi ma xam ni jàll faw mu am jéggi faw mu am te jàll wóoru allahu akbar yàlla mu ne wa in minkum illa waariduha amul kenn ci nit ñi lu dul di nga jàll sawara kaana ala rabbika hatma maqdiya mu ni jàll faw mu am mu ni jéggi faw mu am te jàll wóoru mën ngaa jéggi te doo jàll ñëw di jéggi pont bi te doo jàll mu ne kon jéggi gi day am waaye jàll gi wóorul te maa ngi dem allahu akbar xoolal ku nekk ci ron keppaaru yonent mu wóor la ba tànn la nga nekk généralu guerre te ba léegi rek mi ngi am tiitaange ci boppam wa wa kadalika kaanu kulluhum yataayashuuna maa al ayat wal ahadith gaa yi di ñaan naan ah sahibakum allah wa rafa ankum wa raddakum ilena salihin yal na yàlla ànd ak yéen yal na yàlla delloo si leen yal na yàlla dimbali leen abdulahi rawa xamu ni li ngeen di ñaan ak li may ñaan bokkul de lakinna ni asalu rrahmana maghfiratan wa darbatan zaatu far'in taqdifu zabada aw ta'natan bi yadi harrana mujhizatan bi harbatin tanfithu al ahza ahshaa wal kabida mu ni man moom li may ñaan ak li ngeen di ñaan bokkut man li may ñaan yàlla mooy yàlla jéggal ma su may bàkkaar li may ñaan yàlla bu mu amee mooy caw yañ may caw ci ay jaasi na métti lool ngir tiyaaba yañ may fay tol noona li may ñaan mooy jam-jam yiñ may jam mu métti lool ngir tiyaaba ya tol noona même bu fekkee biir bu xotteeku sax da cay bokk baax na naataa bi àjjana rek moo ma gënal allahu akbar mu ni xatta yaqulu ida marru ala jadathi arshadahu llahu min gaazin wa xad rashada ngi dama bëgg ëllëg ku fàttali ko ti mu uta sa xel dem ci man allahu akbar kon de tey sum xel dem na ci moom damaa bëgg ku jaarati barab ba mu uta nekk rek nga xam ni général bu mat général la ngi damaa bëgg ku fàttali ko ti mu uta rek nga xam ni kii kat général lu guerre la woon boo xam ni lan ko doon doyee mat na ko radiyallahu anka wa an jamii sahaba ndeysaan gaa yi di ko di ko di ko di ko tàggu ndax xam nga yonent bi da koo fonkoon nag sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di ñëw daal di koy song moom it di ko tàggu mu daal ni ko yuthabitu llahu ma ataaka min xusnin tathbita muusa wa nasran kalladi nasaru inni tafarastu fika alxayra nafilatan firasatan xaalafathum fi alladi nazaru anta arrasulu faman yuxram nawafiluhu walwajha minhu faqad azra bihi alqadaru mu ne yonent bi saa sallam man de maa ngi ñaan yàlla dëgëral la yow mii na yàlla dëgëralee woon Moussa ba mu am ndam maa ngi lay ñaan yàlla dëgëralee leen noonu man seetlu naa ci sa xar kanam gii ay xeeti mbaax mbaax yoo xam ni wóor na ma ne ñiy juuyoog yow dañ laa xamul yow de yaay koo xam ni saw yiw képp ku ko yàlla xañ xool sa xar kanam bi ku ko yàlla xañ kooka rek dogal bi fa mu ko fil baaxul allahu akbar ndeysaan yonent bi daal di di gunge sallallahu alayhi wa sallam ñu daal di départ bi ñu départ ñu ñëw ba ak si barab bu ñuy wax maaan ci ardu Sham mu tolloog fi ñuy wax siri tey ci àll bu yaatu boobu ñu daal di dégg ni buur bi dajale na ci romain yi téeméeri junni ci ay soldaar giir gu ñuy wax laxm ak juzaam mooy ñaari giir yooye nga xamante ni ca seen biir ca la ña jëloon gaal dem ba gis masiixu dajjal ca la bokk ak balqiin ak bahraam ak yeneen i dëkk dajale nañ téeméeri junni muy ñaari téeméeri junni ak ay général yu mën a guerre ah saxaaba yi di taxaw leen kaay leen ñu fanaan fii buñ continuer kaay leen ñu fanaan fii ñu diisoo ndax diisoo dafa am solo biñ diisoo ñii ni nañ tourné ñii ni nañ dem lu ñu am jël ñii ni nañ bind lettre yéen sa sala mu yónnee ñu ay soldats parce que xam ngeen ni ñetti junni mënuñoo jàkkaarloog ñaar téeméeri junni noonu rek abdullah ibn rawaha ni waddet ni yaa qawm wallahi inna alladi takrahuun lalladi xarajtum lahu tatlubunahu alshahaada yéen da ngeen a fàttali leen tax a jóg yéen li leen tax a génn moom ngeen di daw lan moo leen tax a génn ba ngeen di ñëw seen kër xaar da ngeen bëggoon dem pour dem pour shahid yéen kon ah yéen da ngeen doon dem pour dellu si xoolal kon loolu da lay wan ni moom bi muy dem parewul pour dellu si gis nga li lay wan ni parewul pour dellu si am na benn waay bu ñuy wax Zayd ab jirim la woon bu mu yore bi xasa bi bi Abdullah ibn Rawaha di way ba mu yàgg mu naan ko su ma faatoo sax nga jël alal ji xale bi jooy mu ne ko waaye yow toskare ñeneen looy jooy yow kay su ma faatoo nga jël alal ji yëpp kay ma may la kay mu jeex fekk alal ju mu yoroon pour bëgg ko faa bàyyil moom jirim bi kon xam nga ni kii parewul woon pour dellu si mu ne yéen li ngeen li li li leen tax a jóg mooy am shahada wa ma nuqatilu nnaasa bi adad wala quwa wala kathra wa innama nuqatiluhum li bi hada ddin ñun xeexuñu ngir bari waay suñu force bu bari waaye du tax ñu am ko waaye ñu ngi amee force bi ci suñu diine ji akramana allahu bi diine ji ñu yàlla teralee fantaliqu bu yeboo ngeen jug man damay dem de fa innama hiya ihda alxusnayayn wa id ya'idukum allahu ah ca suutul anfal qul hal tarabbasuna bi qul hal tarabbasuna bina illa ihda alxusnayayn xusna yooyu ni benn bi mooy nga gañe jël màng ma ñibbi wala nga faatu tàbbi àjjana mu jeex mu ni ñaar yooyu bu ma ci am baax na man allahu akbar ñu daje dem fekk seeni noonu mbokk yi xalaatal ñetti junni nan lañ mën a dékkoo ñaari téeméeri junni ci ngay xam ne ndekete mbir mi yàlla ni wax kam min fiatin qalilatan galabat fiatan kathira bi iznillah moo ne xeex bi li muy metti metti day suñ nee la la julli léeg-léeg borom borom xam-xami histoire yi dañuy wax wax ju kéemtaane xam nga xuneen dañoo gañe jullit ñi waaye borom xam-xam dañuy wax ne jullit ñee gañe lan moo tax ñu ne jullit ñee gañe buñ la ko buñ la nettalee na mbir ma demee ci ngay xam ne loolu mënta nekk lu dul gañe waa ji njëkk a jël drapeau bi mooy Zayd ibn Haritha di xeex di xeex di xeex ba ñu rey ko jaafar jël drapeau bi gis nga jaafar keroog la def lu kéemtaane dafa xeex ba xam yi fi mu nekk nii jam-jam yi mit na day faatu rek mu jël jaasi ji cor tànki fasam xam nga lu tax mu cor ko fas wi daf xam nga li li booy booy kaw kaw yi xam naa booy ndakaar yi xamuñu ko fas wu alde fas wi da doon fas wu alde mën a xeex xeex boo xam ni mu ni buñ ma reyee ñoom ñu jël fas wi di ko jëfandikoo ci jullit ñi loolu moom mënul nekk mu cor tànki fas wi fas wi daanu moo tax imam abu xanifa ak ñeneen ci borom xam-xam yi xam borom xam ne dañuy tere lor ak jur yu mel noonu ñu ne su fekkee ci bunt bii la dugg nga bañ say noonu jël ko wala lor nar a ñëw nga def ko suba doo ci am bàkkaar wa illa faat ak jur wala def mittale sunna da koy tere nee nañ loolu moom moo ko njëkk a def ci taarix islam mu cor ñeen tànki fas yépp parce que fas wi alde na alde goo xam ne yéefar bu ko war di nga am doole ci jullit ñi te moom kay muy faatu moom nee na faatu moom kese mu ànd ak fas wi dem allahu akbar noonu ñu daal di koy jam ba mu faatu abdullah ibni rawaha nee na bi mu bi mu demee bay jël drapeau bi seytaane daal di koy dikkal seytaane moo bonte saay-saay ah sum waaye yow moom sa bakkan bi fi mu nekk nii jaxi jege na xottu gerte kat commencé di ko dee ay dee mu ni cëpp aw fasam ni wallahi aqsamtu ya nafsu latanzilanna taa'atan aw la tukrih aw la tukarrihunna giñ naa ni yow sama bakkan bi di nga wàcc fas wi xeex léegi léegi wala ma forcé la nga xeex léegi léegi yow xam nga ma de xanaa mi ngi waxtu de mu ne yow bakkan bi xam nga ma de maa ni araaki takrahina aljanna yow da ngaa dof xanaa lan moo tax nga bañ ajana yow ba ngay jógee ca dëkk ba nii nga meloon xoolal muy wax ak boppam de mu ne yow bakkan bi ba ngay jógee ca dëkk ba nii nga meloon yow xanaa da ngaa dof in ajlaba naasu wa shaddu ranna ah nit ñaa ngi reculer di jéem a arrière yow nga naan da ngay yow xanaa da ngaa dof yow da ngaa fàtte la taxoon a jóg la taalama qad kunti mutma inna yow li nga ñëw yëpp yaa ngi am jàmm amoo tiitaange defoo dara nga ñëw ba fi naan da ngay ragal hal anta illa nutfatun min sanna yow xanaa nekkoo barki démb lu dul toq nutfa bu ma fontoo de laa wax di wax ak boppam ndeysaan mu defaas avancé ay pas tuuti ndeysaan seytaane dikkalaat ko mu ni yaa nafsu illa tuqtali tamuuti même buñ la rayut fii xam nga dangay dee yow loolu moom xam nga ko hada ximaamul mawti qad wasalti qad sallayti place bi ñu war a dee kay mi ngi nii deel benn yoon mu jeex rek li wolof yi naan bisab dee dund day araam mu ne wamaa tamannayti faqad laqiiti eh sama bakkan bi bu ma fontoo xam nga li nga doon bébét lépp lépp mi ngi nii yegg si na dee ci des in tafaali faalahuma hudayti hudayti jaafar dee na ak kan zaydu dee na in tafaali faalahuma gis nga bis boo defee nañ def rek hudita nga am jaam rek mu fëq gis nga toog na ñetti fan lekkut ndax daa xiif benn jigéenam ndeysaan daal di ñëw yëkkati benn morso yàpp jox ko ko bi mu koy lekk mu dégg fas wu ngexal mu daal ni ah man kon maa ngi àddina ba léegi deewagu ma daal di sànni morso bi allahu akbar toog na ñetti fan lekkut imaam ibnul jawzi mi ngi koy nettali ci sifatu safwa muy daa toog ñetti fan lekkut mu sànni morso bi mu ni ah kon man maa ngi dund ba léegi dal di départ di xeex di xeex qitaal al batal ka saaxibayhi al mutaqaddimayn comme ñaari ñi ko jiitu woon ndeysaan ba ñu rey ko bi ñu ko reyee nag benn waay bu ñuy wax Thabit ibni Arqam këf drapeau bi bi mu këfee drapeau bi daal ni ah yonent bi newoon na day suñu reyee ñetti général yi nañ seet kenn ku ñu doy seet leen ku leen doy gaa yëpp ni ko doy nga ñu mu ni wallahi du ma leen jiite xalaatuma ko sax te ñu ma gën ne ci mbooloo mi waxu ko woon ngir ragal dee de da ko wax ngir respect par respect saxaaba yi daawuñ nangoo jiitu ñu leen gën par respect la ko waxee gaa yi nar koo gëtan da nga koy jël benn waay mu ni xaalit yaa ngi ci mbooloo mi mu ni waaw mu ni ko jëlal drapeau muy nakk dakkal mu ni ko defal li ma la wax xaalit jël drapeau bi waaye man dafa am lu ma jaaxal muy laaj boo xam ne ba léegi awma tontoom yonent bi ak ni mu xamee Xaalid ak jullit ñi ni leen Xaalid sonalee woon ca Uhud ak ni mu nekkee général te yonent bi muy tànn ñetti ñii bàyyi ko fi tànn ko affaire bi jaaxal na ma lool lool lool toog naa di ko xolam yàgg ma ne gis nga yonent bi lépp lu mu def xekk ma ju réy ma nga ca booba booba booba ndeke yàlla mi ngi sakkanal Xaalid man sama dégg-dégg laay wax booba yàlla ak yonent bi ñu ngi sakkanal Xaalid kooku warta dee muta parce que am na après muta yu koy xaar wallahi dama toog di xool masala mi xalaat xalaat xaw ma lu may ma ne damaa yaakaar ne yàlla da ko doon sakkanal kon akob yonenteem dañ ko doon sakkanal parce que ginnaaw muta yar mu xurub ridda ca musaylimatul kazzab bu saaxa gis ngeen ko ci nudu Xaalid def na ay jaloore yoo xam ni kon dañ ko waroon a sakkanal ba foofa xaalit jël drapeau bi allahu akbar gis nga yéen ñëpp mbooloo mi mat nañ ñetti junni ci ay nit mbooloo mi mat nañ ñaar téeméeri junni ñaata jullit ngeen yaakaar ñoo war a faatu keroog ah ñoom ñëpp war a faatu jullit ñi def nañ pexe ba douze personnes rek lan ñàkk douze personnes kese kese biñ wàññee ñoo ñàkk ci julli ñoom ñoo faatu bi ñu xoolee Xaalid xam ni douze personnes ñoo faatu mu jël décision beneen personne du ci topp te tey ma def leen jëf joo xam ne tey ngeen xam ni ñëw naa Xaalid ni leen nañ leen dem tëri ba suba ñu dem tëdd ci guddi gi mu formé waat guerre bi yéen ñi nga xam ne yéen a féete woon nday joor ak seeni kaal ak seeni xeej bu subaa dem leen côté càmmoñ yéen ñi féete woon càmmoñ dem leen remplacer ñu nekk ndeyjoor yéen ñi nekkoon ca gannaaw ñëw leen ci kanam ñi newoon ci kanam ñëw leen ci ginnaaw général ba newoon ca ginnaaw na ñëw ca kanam ka newoon ca kanam na dem ci gannaaw xam ngeen lu mu jublu ci loolu dañuy ñëwaat ci ay xar kanam yu bees tàq yéefar yi jàpp ni renfort daa ñëw bi ñu sàppee yéefar yi seen jullit ñi xool ay général yi guerre lañ xam nañu xew bu ñu xoolee rek sànni seen bët dañuy xam ne lawoon démb du tey général daan ne ah tey jii daa mel ne jàmm nar ta am de gars yi renfort ñëw na démb ci ñoom fekk déedéet loolu la ci xaalis jublu woon bi mu nee renfort ñëw na rek gars yi commencé tiit di raf rafe rek xaalis tëbal leen bi mu leen tëbalee ren di na ci ñoom loo xam ni yàlla rek moo xam nu mu toll di cor di jam di cor di jam parce que ragal nañ xam nga ne nit ki boo ne ko xuux mu daanu yegg suuf kay egg egg jekkali ko rek mu dem gis nga bi Xaalid defee la muy def xam nga dañuy xeex ba ngoon jot ñu wàcc jëmale suba Xaalid daal di xeex ba ngoon jot mu wóor ko ne rey na la mu bëgg a rey lépp mun nañ leen yolleeku ndànk daw ñibbi xam nga lu tax xam nga dañoo daw ba jigéen ñi naan antumul farraaruun yonent bi ne déedéet lii ngeen def noonu laa ko bëggee lu tax borom xam-xam histoire dañuy wax ni ñetti junniy nit nga bàyyi leen ñu alku ba yéefar yi lekk leen ak nga foŋ leen ba douze personnes faatu ci nga daw rëccal leen looloo gën a nekk ndam moo tax kon jullit ñi dañ caa am ndam moo tax ba ñu yegsee yonent bi naan leen antumul karraaruun yéen da ngeen a wut si doole ah ana fi atukum ah man maay delluwaay bi bu ngeen jaaxlee ndeysaan bi mu yegsee ca la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daat ni balaa xabaar bi yegsi waa ji dafa ñëw madina ne yonent bi ah njaaxum am na de yonent bi ne ko xam naa ni njaaxum am na kay mu ne ko noo ko xamee mu ne ko sama borom yàlla xamal na ma ne ma zaydu faatu na jaafar faatu na ibni rawaxa faatu na mu ne ko am na ko jël drapeau bi jox na ko xaalit tey nag maa ngi leen di seedeel ni yàlla teg na ci loosu yéefar yi jaasi joo xam ni moo ko boccil boppam subhanahu wa taala keroog la ko yonent bi tuddee sayfullah xaalit sayfullah bis boobu la ko yonent bi tuddee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndeysaan gis nga xeex bi ak yeneen xeex bi jullit ñi yëgee nii la Xaalid def xam nga jigéen daa gaaw a soppeeku mën naa jooy léegi ree léegi xas la léegi tagg la léegi fu mu wëlbatiku ci Madina rek jigéen ñaa ngi yërdu ci sàkke yi di ko di ko ay waay waay waay tey dimbali nga ñu bu dul woon loolu suñu jëkkër yi dee waay gis nga di ko bàkk di ko wax ay wax yoo xam ni loolu ay xare yu bare bare bare bari def nañ ko ko Abu Suleymaan la tuddoon Abu Suleymaan Xaalid yal na yàlla sàmm la yow Abu Suleyman yal na yàlla defal nangam Abu Suleyman di ko tagg-tagg yu macha allah kon nii la yàlla defee xeex ba jeex ca la waa ji faatoo muy ibni rawaha radiallahu anhu wa arda lii nag mbokk yi bokk na ci li muy delloo si waatal ci ñun mooy nit ki dafa war a fexe ba yàlla akub yonenteem gënal ko lu mu mën a am ci kaw suuf ñaareel bi bakkan bakkan boo ko yarul fa mu la jëmee baaxut ñetteel bi lu baax tàmbali ko yomb na waaye doo continuer benn mbokk day misaal misaal bu bu ma marqué bu am solo misaal bi déglu leen ko ndax ñu mën cee jariñu mu ni seytaane day ñëw ni la doo fi defee nga jëm kaw jëm suuf mu jaral ko xeex doo fi defee boo nee ko tibb ba def bul yaakaar ni pare nga de gis nga day faxas suuf si jugaat dem kor la ca kanam xam nga lu mu lay xaaraate ci kanam léegi dootul waxati doo fi defee doo sellal lay wax dinaa fexe ba doo sellal moom kay léegi dëgër nga ba pare dangay def dinaa fexe ba doo sellal yaag moom ba nga ni ko tipp sellal mu dem taxawaat ca kanam faxas suuf si ni danaa xaar nga ñëw mu ni maa ngi xaar bis bi nga ko war a yàq mooy lan nga am problème ñëw ma abal la vingt-cinq mille kenn yëgu ko bis ñëw nga daggal maw saaga ma ne yow yaa bon yow yaa ngi fàttali ko keroog sa problème yow bu dul woon ak man nga dee maa la dimbale iblis mu ne ah c'est bon noonu laa ko bëggee woon laa tubtulu sadaqaatukum bil manni wal azar mbokk yi ñett yi kan ci ñun mooy am kóolute ci boppam ci ne mën na cee mucc lu dul ndimbalu yàlla subhanahu wa taala doo fi defee nga dëgër bopp muy doo fi sellalee nga sellal mu ni bis dina ñëw nga yàq ko maa la ko wax. lu bari ci ñun góor-góor lañ bari ci ko ci ñaar yi waaye mu jëntalu fa lañ ko dafa métti nit nga defal ko teraanga ba dafa wëlbati ko wax la lu bon wala mu def la lu bon gis nga booy rëccile bay yàq sa jaamu yàlla yi doo ko yëg li may jeexalee mooy la mbokk ma waxoon. yaag soxna si da ngeen a jote mu ne waaw lu ngeen jote mu ne ah laaj leen ko soxna si soxna si na wax soxna si taarararararararararar wax ba àggal ñu ne ko yow waxal mu ne man comme yàllaa ma boole woon ak moom ma doon def li may def ci moom ngir yàlla di ko suturaal ngir yàlla sutura sa du ma ko xawee ci bis bu ñuy tàqali ko jeex ñu wax wax wax mu ni benn baat du ko wax mbokk yi xoolal lii est ce que ñun ñu ngi koy dund te xam nga fayantoo dafa neex nit ki wax nga wax moo ma wax lii moo ma tuumaal lii maa ko tuumaal lii xaaral ma weddi li ma waxal du dëgg mu ne bàyyi naa ko ngir yàlla maa tawaadaa abdun illa rafaahu llah mbokk yi jàng dund saxaaba yi lii lay jëriñ pour ñu yar ci suñu bopp nanu góorgóorluwaat yoon wi gudd na pax yi bari na lonkukaay yi bari na te jël yi bari na de ku yaakaar ni wóolu nga sa bopp mën ngaa dem ba yegg doo fëkkatal ci benn pax saa boo naagoo daagu te ku daagu yàqule nu ngi ñaan suñu borom mu sàmm ñu fi dunya wal axira yal na yàlla saxal nu ci sunna dundal nu ci lislaam faat nu ci iman waan yudxilna alfirdawsi al aala مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين